plaze pri, platform ou lo bo hamne, li ka takho djok mwen niga hamne, niga chi gok gokati am aktivite ekonomik bou nye yi def, nyou mwena am jomtwa yi yon ko defe. Li nyou mwena neme konak ti tjes, nyari mbir le. Mbir bi djit ou mwen, tjes, kontrèrman ak rejon yu bari, amnen nou mécanisme premier bi ñu soxla pour mëna a yeggal financement yi ci ñu soxla moy système financier décentralisé bi tey si tey dénombré nañ ñeent fukk ak juroom ñaari réseau yo xamné institution de microfinance ñu teg ci fukk ak juroom ñett yo xamné ay SFD isolé la bokkul ak ñaar fukk ak juroom yi nga xamné dañu affilié ci ay réseau yu mag ça veut dire que tey képp ku soxla financement biir région de Thiès amna structure boo mën dem pour jot financement kon li dess moy ñu xol intervention yi ñuy def par rapport ak programme bi nga xamné état du Sénégal am ko muy ci wàllu DER muy ci wàllu empêche muy ci wàllu product wala ci wàllu microfinance à travers l'économie sociale solidaire ñu xol ban accompagnement technique ak ban rationalisation la ñuy def ba nga xamné acteur bu ne di nga mën joté ci financement bi lolu moy wàll bu njëkk bi benen wàll bi dess aussi moy créer conditions yoo xam ne ñi jël alal bi dinañu mën sans pression te ñun ci wàllu microfinance li ñu jàpp mooy loolu dina ci bokk accompagnement technique boo xam ne dina ko accompagner promoteurs yi bu ñuy tàmbale jot financement bi wala laata ñu koy jot ba buñ ko jotee ba def seen produit ba koy mën a jaay loolu lépp nag dinañ ko xool ak administration territoriale bi def comité régionale de suivi jël ARD yi comme point focaux signé ak ñoom entente et puis suñ fi jógee dina am équipe technique bu ñëw boo xam ne avons commencé def encadrement Ce qui est le plus important ñu millions région pour mën les promoteurs modèle économie sociale solidaire bi président de la république indi moyens pour que nous réglementer entrepreneuriat liggéey lu bax la accéder ci financement lu bax la mais t'ay lu ñu ëppal solo té loolu moy sababu plan Sénégal émergent moy nit ñi di am ay résultats yu mucc ay ci li ñuy yëngatu. bi deuxième phase place Prix la boo deuxième phase première phase amone na ñi ngi tollu ci lu ëpp 90% pour ci taux de recouvrement mo ñu permettre t'ay ñu mëna am deuxième phase état du Sénégal am patch bu mu ci indi euh, coopération italienne indi ci patch Euh, Union européenne indi ci pàcc ñoo ñëpp biñ ko boolee mu toll ci vingt cinq milliards ñu xaaj ko ci ñett pàcc ñu ne dina am pàcc boo xam ne un peu moins de dix milliards dañ koy jël dugal ko ci ligne IMF amaan na beneen euh, à peu près neuf milliards dix milliards ñu jël ko dugal ko ci ligne PME. ak euh, li ci dess ñu assistance technique bi ba sur tout le processus euh, d'entrepreneuriat euh, ministère bi dina mëna chaîne de valeur bi créer comme nous ko les conditions de réussite pour les promoteurs qui s'activent et qui accèdent au financement projet yépp que ñu jox keud projet bu ci nekk rek ko koy def gëdd bi mu ko jox jox nañ ko gëdd bu ko raw mais li nga xam ne aussi munta euh, mi ngi fi fee bu réel la mooy jigéen ñi ak ndaw yi ñoo ëpp ci euh, population Sénégal bi monde rural bi aussi am na pàcc bu bari boo xam ne am na luñ ci war a xëcc donc euh, si suñu vision ak orientation inclusion financière nous nga le le président de la république Sainte. donc il faut que ce nga les disparités, disparité yooyu nga xam noté nañ ko groupe secteurs nous puissions le ko rattraper prioritairement c'est un projet pour les femmes pour les jeunes euh, au niveau euh, du monde rural mais d'ailleurs, boo xam ne képp kuy entreprendre jox na ko def